xamante ni rek ñu ngi taxaw ak ki nga xamante mu daal ñëw nag ci ma maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di jox sa wàccuwaay. di nuyu nag euh, sama nawle yi nga xam ni samay doom ngeen ñi nga bokk mag yéen milieu bi rawatina nag euh, yéen ñi nga xam ni euh, yéen ay influenceurs yi nga xam ne yéen ay filmé ndax fi réew mi toll nag tubaab fi ci yéen a waaw Ndaya Beauté nag ñoo bokk dëkk ginnaaw li ma liyee moom tey Mame Bassine Thiam la maa ngi ko ma jël diggante la lamb la lamb gis démb ba léegi war na ma fi fekk waaye ku nekk gis sama digganteeg uh, Elimane Lam ma nekkoon ci loolu démb ba léegi loolu moo tax waaye Mame Bassine Thiam moo ma liyee ak Ndaya Beauté ndax Mame Bassine la jël def ko nday ni ko yaay sama ndey yaay sama mag Euh, ay bokkam baax lool nag jëlaat cër bi bis bi joxaat ko Mame Bassine ni ko yaay yaayam yaay magam yaay léppam Mame Bassine nangu ko ni ma woon nag yaay sama nawle ndax nag euh, milieu bi nu nekk su jeexee nag tubaab fakal la nag Ngoromène laa dëkk Mamba Demba ak Ndathie bi ci loolu fa defee fi loolu moo tax ma doon nekk ci liggéey ba heure bi may doog a ñëw war a ànd ak waaw man nag naka jekk jaaykati nit ñi samay xarit ah, ndax euh, ñun ñi nga xam ne euh, dañuy ay artistes dañuy joué théâtre dañuy joué ay téléfilm ñu ngi nekk ci milieu animatrice bi euh, dañuy lié ak jaaykatu diw dañuy lié ak jaaykatu ñiy jaay sañse ñiy jaay cheveux waaye rawatina ñi nga xam ne nag euh, tubarfakal la lépp luy taaral doomu aadama rek rawatina jigéen dañu ciy dooleel. noonu la ñu amee sax génn ñoo xam ne nag tubarfakal la ndax li may wax ni télé poche yi léegi tëj na réew mi mm. euh, li lay taral ci mbedd mi moo ëpp biir kër gi moo ëpp kër gi nga xam ne yaa ngi fa nekk liggéey ci télé bi dañ lay fay sa salaire waaye li am par jour te loolu lépp dañoo war a xam ne ñun benn lañu. kenn mënuñu xàjjale. Euh, gis nañu euh, fan yi nga xamante ni ci lañu xam ne doon ñu nga xam ni euh, li ñu remarqué mooy dañu doon saboté satin bi ñu bëri sax ñaawlu ko ci commentaire yi alors loolu noo ko jàngatee. waaw xam nga man nag njàngum géwél laa jàng du ma commentaire. waaye nit ñi ñi ngi ma doon wax commentaire yi sénégalais yi ñoo baax rek bëgguñu koy tooñ bi ci des it man damay wax ne man Fama Faye géwél aw ma noonu àdduna yëpp ma bëgg ñi xamatul Fama Faye bi sa xam Dior Fada ak bi àdduna yëpp ñoo ma bëgg mais loolu métti waaw samay at a ngi bëgg a bari xale laa waaye samay at a ngi bëgg a bari te ku yàgg diwoo xeesal tubaar fa kàlla bu la neexee am teen bu la neexee waaye jaaykatu xeesal yooyu yëpp samay rek lañu benn ci maam Ndiaye mi nga xam ni euh, korok maa ngi moom waxa waxante na sama rakk la sama rakk la sama rakk la xam nga lu tax mu nekk sama rakk man dama ne millier sorbise aw ma ci noonu te li ma opté pour wax ko ni moom loolu laa bëgg a def loolu lay deewaat waaye nag korok bu mu fekkee mi ngi wax ak man fekkoon na ay moromam yoo xam ne ñoo bokk làng gi ñu may may ma diw nee naa la boo duggee sama kaw coiffeuse xeetu diw boo bëgg a gis ma nga fa waaye tubaar la macha allah damay xool bi nga xam ne moo ma arrangé xol bi ma jik mu may ma ko booba man xamuma ko léegi rek bi ñu jiitlee di ñëw dan ma fanfe man xaw ma la woon man ko bi lay ma ne xaw ma la woon ma ne nit ku baax la mu toog live nii ñëpp di ko laaj sa diggante Franc Faye mu bu baax la xol bu rafet la nit ku baax la parce que gis nañu ni da loolu méttiwul loolu méttiwul ak ni mu ko defee publiquement dafa mel ni méttiwu ma nag ah méttiwu ma hmm. méttiwu xam nga suñu milieu lu leen ciy fekk boobu ànd nga ak xat-xat quand même meroo nga non déedéet euh, xale yi nga xam ne fekke na ko xam na ni duma mer ci loolu dafa tombeek euh, yaay puy du yegsi ku ne xam na ni foiru ma mi Evens maa yoroon micro central bi man ànd ci ak salaam Ndiaye euh, noonu nag ñu woo ma ni ma kilifaa ngi dugg si te yaa war a dugal kilifa gi boo xoolee sax nag euh, dañ ma doon jël si di ma woo tombeeg may daw waaye meru ma sama cee toll. da cee mm, loxo yi cere la boobu meroo. déedéet ndax cerewu ma nga tubaar fi kala maam Demba nga ci ci la fi maa ngi doon fa bay tey man bu ma neexee si bu ne si lii damaa jot ma doon sama yaay nga daa rafetoon tubaar fakkaar ci taar damaa jox ma xanaa seenu ma. leer xanaa ma. ku nekk sa kanam day na la taar ku nekk sa bopp dawloon sa yaram waaye nag ku ne sa taar nag tubaar fakkaar la boo ko téyee amee mu leer la ni ngay def tubaar fakkaar la am na ñu ci bëgg. am na ñu la bëgg ci loolu mais méttiwul. sponsor bi bu ko saboté loolu moom la concerné la ma ko waxoon ko rek sama kanam moom la concerné maam Ndiaye sama rak la nit ku baax la. sa rak du la humilier. non question du est-ce que comprendre nga maa wax baati tontu la mu pare ci ma pare ci fi senegal toll bu la ñu dëggee da nga koy daj bu la rëkkee nga rëkk tubaar fakkaar la waaye nag boo leen demee ba toll ci jàmm da ngeen jàmm. Ah, ak sa tur fi mu egg kon. non déedéet non méttiwul du humiliation ba ngaa dégg-dégg man faama ma fay VIP laa sama doom. dinañ ci bàyyi xel. mais dafa mel ni déggoo ma de man faama fay géwélu VIP laa. na àdduna yëpp xam ne man géwélu VIP laa man géwél laa pour ñëpp waaye ñi ma ko seq man euh, gaw ma ni dérangé na ko ndax xam man koo xamul ay yëfam du la dérangé xam nga buñ fi taxawee rek di waxtaan nag ñunu nee na te yaakaar naa ñoo bokk milieu bi koo xamul VIP am du la déranger man xamuma xamuma ko waaye kor ba ma waxee dama ne ko xamuma la bi ci des it woon ma mbaax. Ah, woon ma yaru xamuma xamuma la boobu noonu nga ko wax. de ah, ah, du ma def loolu man du ma boobu genre dama ko ni ko rek xamuma la man dama am dama am sama géer. parce que jamono jooju moom Eva Solution dañoo laalante woon. baax la. barke Alaaji Malick aram loo kumba caam bëgguma pen ak fàtte pen xar yàlla bokk ci woon moment bi ma wax loolu ba fi ma waxee ak yow nii barke Salatul Fatiha diw Eva lay diw Eva solution moo ma jox moom nee na li muy jaay man loolu wóoruma détail boobu dugguma ci. nee na Eva bat la. xam nga man lu ma lijjanti li ma sëq Eva li ma sëq ak maam Ndiaye ak li ma sëq ak Tima An an demb ak Inimaan xam ba mu dalee jaay diw àdduna ci àdduna yëpp xam. waaye patt la woote laa jënd ay kiloy patt man loolu moo ma boole xale yi maam Ndiaye nit ku baax la Eva solution nitu valeur la Tima An nitu valeur la Ndeye sama Samake nitu valeur la ak yenn xale yoo xam ñi ngi jaay diw te nit ñi xamuñu leen ñu ngi toog ci seen xol jaay diw waaye ku nekk ak seen yi maam da cee toll moo tax noo am Eva solution non non non noonu kokkali ah yéen sénégalais yéen yéen yéen yéen journée yéen yéen sama mbokk yi yéen a ko jàppee kokkali ah ndax loolu ankay man jàppee ma ko wala yu nekk lu ni fànn du ko jeex man jàppee wu ko ko xam nga ma ko jàppee sabarak la mu wax ma wax bi ci des na dafa indi jàmm sama diggante ma fekk si mu fekk ma kaw chef déedéet réservé wu wuma ci dama xam nga man nee naa la ba ma dee ma ba tey sama carrière yi nga bëgg a yaat kenn mësuma dégg sa internet lii sax si sax du ma ko damaa ciy liggéey ci maa ngi ciy liggéey maa ngi yéene bokk liggéey bi li ma def li ma mel lii la waaye boobu damaa doxul ci yaa ngi may dégg sama rakk la fekk na ma kaw seen baalu ma àdduna yëpp di ko gis ma xoolal ko àdduna yëpp di ko gis man ko baal naa la ci xol bu sedd bi ñu ànd ànd bu saay sa ba pare mu nekk nit ku samp léegi rek ñoo kabar man ma ni Cobra ñu def convoi ñëw fii ci xew yaa ngi may dégg bi ci des nag xale yi kenn ku nekk xoolal ka lay jaay ji di la xeesal nga dem mu xeesal. mais lan ngay tontu ci ñi nga xam ne dañuy wax que ni Mame Ndiaye Savon dafa yëg boppam peut ñoom la concerné. man gisu déedéet gisuma xam nga li nga seet loolu ngay gis xam nga man lu ma gis ci moom xam naa ne nit ku baax la ndax boo nee sama mag damaa jum te fu mu nekk nag baar fakal la xale yi rek yëpp dañuy jàmbe man gisuma loolu loolu ak ñi koy wax ñoom la concerné ndax kor ba ma waxee lu loo xam ne bëgg ma ko dégg dama ne ko dégluwuma loolu dama bëgg sénégalais yi fi jamono toll surtout maa yéen sama mbokk internet nit ñi dañu leen bàyyi xel am na ñoo xam ne nag lu mu gudd gudd dinañ xool TikTok lu mu guddi guddi dinañ xool si internet bi nañuy rafetal te man xale yëpp samay xale la bu ma cere yëpp jox ma man te xam naa ne tubaab fi kàlla ko gis la bi ci des xale yi may wër xale yi mën lañ bëgg dañ may topp man VIP la waa chéri man VIP la non métti na jaaykat diw yëpp samay xarit la waaye déggoo ma ni la ci maa aan mu ma jëndal bi avion day jaay diw may gi muy sama xarit di sama géer animatrice boole maa ngi moom sama sœur la yaa ngi may dégg te kenn dégg ko ci kaaw diw Eva solution moom ginnaaw raay la dëkk taalibe Serigne Babacar bi mu ma commencé may diw barke Alaaji Maalik dama cee gis sama bopp ba damay jëm non loolu wóoruma ndax nit ki ki ngay ki ngay suivre mooy ki nga ki nga am jot man boo bëggee dégg-dégg dama li ma Eva solution may bi ma ko diwoo dama xees la ma ma tamit laa gis xam nga nit ki tamit da ngay wax sa dëkk Eva dafa ma may diw ma diwoo ko gën a jëmmal man naka jekk bu ma xëyee bu ma sël moo sax tabaarakallaah nu xam ne nag sama day liggéey sama kër baay taaru ci man la ne deret la bu ma neexee sul xar waaye xale yi nanu jàmm yéen tam ngeen génne lu rafet di ko waxtaane mënatul a a ñàkk dëgg la nag lii moo leen di may nit ñi di leen seetaan lii moo leen di may nit ñi di leen suivre lii mooy moo leen di may ngeen euh, nit ñi di abonné ci yéen waaye des fois bar fakal la ngeen génn gaam waaye man yéen laa bëgg xam nga xam nga maag yéen ñoo far merci beaucoup mi ngi noonu bi ci des mooy ndey xali sama kayit damay jox damay defal tranga xale yëpp amay teral bi ci des nañu yàlla na jàmm yàgg may gërëm nag euh, li tax ki ma àndal léegi ni ko Cobra sama rak la barki dem dama ko bàyyi ba guddi ma fekk kees am na sax sama xarit yoo xam ne nee naa ma yaa taxoon a dem kees man leen maa leen taxoon a dem kees bi dama nekkoon tournage nekk ak jaar di tourné Serigne Awo mu nekk nit ku baax moom loolu moo tax ma guddee dem ci moom programme waaye kon ku ma gis xam taal bi Serigne Sidi Babacar bi damaa yaay faal ndax Serigne Bamba woo te Serigne Bamba daa bari doole moo tax ko rek ma ànd ak moom dem di wax ne taal bi Serigne Babacar si nit ma may baax na. tubaar fakal la maa ngi belli li ci war a topp nag ne na ko xam rek tubaar fakal la ku may wéttali ko te mu ñëw del